بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد دا تنبلي بسم الله الرحمن الرحيم دك أبني ونكونك بغل nit نلين ne leen nañu def di moytu lépp luy indi ak yàq def nañ lu baax def nañ lu ñu sant nee leen digal naa leen daal lépp luy andi jàmm te naqariwul yàlla rek fuñ toll nañ cay góor góorlu di moytu luy naqari kenn lépp loo xam ne mën naa naqari nit ñi nañ koy moytu lépp luy defar nag te naqariwul yàlla nañ koy jéem dëgal leen ni leen sama yitte jëpp rek mooy luy defar sama mbiri bopp ak luy defar seeni mbir ak luy defar mbiri mboolem kilifa yeeg ñu ànd ak ñoom bila makarin wala wururin wala istidrajin wala tanasuhin wala afatin wala kadar wala tazalzul wala fasadin fil ard wasalaamu alaykum xawma man wa xusuusan